ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne ñëwaat nañu ci biir wasaare ak émission mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo li ma naan ki naan benn ñaata ak ki naan saam ñaata mun ñooyam ñu nag dañoo ñëw ne saam ñaata te nag ma dajale fi ñaar ñi nga xamante ni nii mbokk yi dañoo bokk ci làmb ñaar ñi nga xamante ni nii ay mbër lañu ay ndaanaan lañu ndax euh, su ma nee Cheikh Niang Cheikh Niang moom kenn dootu ko présenté moo dëkk Thiès nekk Mbour di fa entraîné bu ñëwee Dakar am na fi wàll ah moo ko booy ñaa la nekk ci ki nga xam ni mooy mooy Bombardier maanaam daal moom carte carte d'identité moom identité moom dafa risque bu doon bu doon bu doon permis à la ñu ne bu ma neexee ñu ne fees na dell su mu ñëwee sama na maa fi ki nga mooy parisien su mu nee parisien nag lii nag moom xam naa ne sax man sax man Paris mooy sama équipe waaw ndax lii gis ngeen xam nga lii moom lii moom defe naa ne euh, ku aare donc moo mën a andi lii moo moo nekk nii toog. bëre ak ki nga xamante nii nii mooy Calcio Calcio nag sama xarit la waaye kaw Parisien di ko jàpp di ko duma di ko duma di ko duma ba kaw ñëpp doyal ci làmb ji ñëpp bëggoon jël Calcio na ko ngi nga toog parce que Parisien moo la mën doon na ko kaw ba Calcio bi mu ñibbee euh, macha allah tey nag ñoom laa fi dalal ñoom ñaar bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb ah bëgg waxtaan ak ñoom parce que ñoom ñaar nii euh, dañuy dundal làmb ñoom ñaar ñi dañuy neexal bés. te ku leen xam-xam ne seen dara du sedd boo xoolee parisien bi ni mu yàkkamtee euh, Cheikh Niang nga ko raw fuuf Cheikh Niang nag dinaa wax benn affaire loo lu musul am ci làmb Cheikh Niang ko fi def mbër mu bëri am 10 KO 10 ñoo xamante ni Cheikh Niang dóor na leen ñu daanu moom donc ko fi defagum nag ci làmb gisaguma keneen gis naa fi roi des arènes leneen leen gis naa ko fi mais nga dóor nit mu daanu ba mu mat 10 moom seex Niang moo ko fi def ma bàyyi leen ñu nuyoo ñu doo ko wéyal waxtaan bi ci kan laa njëkkee sax ci ñaar. koo jox rek baax. Parisien nuyoo. waaw maa ngi lay bëgg bu baax di nuyu waa yëpp di nuyu Cheikh Niang di nuyu waa Écurie Fass yëpp yëpp kaw suuf ku lim juuma di nuyu waa fondation Paris bi yëpp Khadim Fall Codé maa ngi leen di baax a baax ak Cheikh Bara Ndiaye di nuyu waa bëgg bu baax a baax a baax sans oublier aussi waa Yoff mhm. maa bu baax a baax a baax de Lat Diop Saalum Xule maa baax a baax ak fils de maman lii ko ba mère lii ko ba maa ngi nuyu sa doom Saalum Xule bu baax a baax a baax du nuyu Mamour kañ grand frère Salo xule di ko bëgg bu baax du nuyu waa Fass yëpp. Mhm. sans oublier tamit waa Touba Toul maa leen baax a baax. Salo Khoule nag bokkoon na ci animateurs yi dàq animé ci Sénégal. dégg nga ah. Saliou Khoule bokk na ci animateurs yi dàq animé Sénégal. waaw Saliou waa gis nga moo fi nekk jamono jii de animation moom instant suñu wax Sénégal Saliou Khoule tax maa ngi koy bëgg baax baax du nuyu yaayam mère Lika Ba. Mhm. ak papam Perlat Diop maa ngi koy bëgg baax baax président GFC bu Guédiawaye. Mhm. maa ngi bëgg Perlat Diop papa Saliou Khoule. waaw di nuyu tamit Mamour Kanji son grand frère maa koy bëgg depuis Mbour. oui Ousseyn maa ngi lay bëgg bu lu bëri. Euh, man tamit dinaa nuyu Saliou Khoulé ndax man yow rek laay déglu yow rek laay déglu yaa dàq animé Sénégal li ko gars di waxee animateur yi moom yaay seen baay. man loolu maa ko wax maa seen yaay seen baay. mooy seen papay papa. <laughs> nuyool. bismillaahi mina seytaani maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di jox seen wàccuwaay di nuyu parisien. Mhm. ma fekk ci plateau bi. ak mhm. Ousseyn Diop. sama doomu ndey sama xarit en ah, Fatou fay borom cees maa ngi lay ziar. ak ak Ibrahima Khalilou Laye. Mhm. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jox seen waay di nuyu 5 tonnes mais door a dugg si ci plateau bi maa ngi koy nuyu di nuyu ñëpp di nuyu mbokku Sénégal yëpp di nuyu waa Thiès bu baax di nuyu waa Paco ku ci mel ni Sall Ndiir maa ngi koy nuyu di ko ziar ku ci mel ni di nuyu. As Biram fay borom Thiès maa ngi koy ziar di nuyu sama xarit sama leader sama lépp ah muy euh, Habib Niang mi nga xam ne mooy borom Thiès saay Habib maa ngi koy ziar waaw di ko wax ne Thiès a ngoog ci loxoom di nuyu Habib kan di ziar ñëpp di nuyu waa Thiès yëpp ah di nuyu sama waa kër di nuyu sama waa koñ di nuyu waa Pikine sama rak booy Niang di nuyu Bombardier di ko ziar di nuyu waa Mbour gépp di ko ñaanal combat bii ñu jub le 27 yàlla na ko ci suñu borom defal ndam. da ngeen jël si revanche. waaw ah, dañuy jël si revanche ñoom it dañuy jël si revanche. ñoom ñoom ñoom 2-0 leen ñoom ñoom non dañuy si revanche déedéet ñu ne yéen yéen yéen couronne couronne roi des arènes bi. ñoom it dañuy jël si revanche ñoom it ñoom daan nañ leen daanaat leen di Pikine daan nañ leen daanaat leen de. Bombardier deux fois la daan Tyson. waaw daan Balla Balla bi benn yoon muy trois. ñoom léegi trois deux la amagum ak ñoom de. ah trois deux. waaw. mbaa du nekk trois trois. déedéet du nekk trois de. quatre trois la war 4 4 4 lay doon. lay doon waaw. <laughs> gis ngeen moo kii 4 lay doon loolu moo ko sañ wax wala boo xalaatam la. tey nag ñaar ñi laa fi dalal mais dama fi am benn invité surprise boo xamante ni defe naa dinaa wax dugal ci kanam tuuti ndax ñaar mbokk yi dafa nekk combat boo xamante nii ñoom ñaar bëggante nañu déjà. ñoom ñaar nekk nañu ay ndaanaan yoo xamante ni du ma leen présenté benn doon ci làmb ndax su ma ne leen ne kii moo mujjee bëri parisien ne leen kii moo fi def 10 KO moom Cheikh Niang moom moom Thiès moom. mbër yëpp dañ leen di woon ne leen kaay dem Thiès waaye dañuy bañ neen fekk Cheikh Niang Cheikh Niang na pare na pour ñëw Thiès ku ko fa tamit Thiès mu jël te parisien nee na pare na dem Thiès waaye gis naa koo xamante ne tamit bu mu ko ci dugalee xam naa ne ko namm torop mais mais mais Cheikh Niang la ma doon nga def combat yi nga def yëpp boobaa ak léegi fi ñuy tudd yéen a booy tudduñ la fa lan moo waral loolu. xam nga làmb jàppale la fi ñuy tudd ñëpp ñu ngi ma fay ndax koo ne Cheikh Niang xam na ma mais da nga lu tax xëy na li ci gaa yi am amaguma ko ci mais loolu moom biri suñu borom la ndax àdduna moom ku ci nekk lii sa wërsëg rek ngay jot te affaire yi sens la. Mm-hmm. loo ci gis da ngay gis liggéeykat boo xam ne ñafekat la boo xam ne fajar lay xëy. Mm-hmm. di ñafe ji yàlla suñu mm-hmm. borom dogal wërsëgam bariwul. la am koo xam ne fa mu toog sax lay toog suñu borom di doxal ay mbiram loolu wërsëgu su loolu wërsëg la. mais bu dee jëf ci làmb. li ma ci def su ma neexee ñu woo Sénégal ñu toog li ma ci def gisuma góor gu ko ci def. li ma bëri ci combat. roi des arènes yi ñuy wax ak di leen tudd ak barki Seydina Mohamed li ma bëri bëriwul kaar ma foofu dinaa fa ñëw dinaa laaj parce que combat yi bëri na trop ndax ku def 10 KO defe naa ne bëriwul ëpp 15 wala 20 combat benn paa doon na ma koy wax neena na ma aj màkka am oto ak am kër. du ëpp njàmbaar chance la. wallaahi ndax nit liggéey na di fayeeku mille amul kër nit liggéey na di am weer mille yàlla di dogal mu am mm. terrain ba tabax këram. wallaahi nit dina liggéey di ko xaalis ba ajul màkka ngay liggéey di ko soixante quinze bi ñu def tirage fa ngay liggéey nga génn waa aji màkka wallaahi nee na moo tax mu ne ma am am terrain am kër oto boog. ak aji màkka topp njàmbaar ab chance la. ñaata ñaata ñaata combat nga jot a def. man li ma bëre mënu ma ko wax fi ba sax xawma ko xam nga ko bari ba xamoo li nga bëri parce que man billaahi wallaahi taalaahi bari naa plus de cent combat ci li ma la rek téeméeri combat arène téeméeri combat. sëñ bi man xam nga xam nga yàlla suñu borom moom moom moom ku nekka fa sa sens nekk. Mhm. dakaar xëy na yàlla dogal na aw ma fi sens. pour am ci yenn yi parce que suñu borom rek mooy may mais boo génnee lu mel ni Louga Ndar jurbel Kaolack Ziguinchor ba Kolda barki alxuraan koo ne Cheikh Niang mu ne la xam naa ko foofu yëpp dama koo toj. billaahi wallaahi taala ay saa kajoor yi ñuy wax laata muy bëreeg booy ñaa man la njëkk a ñafeel mhm. ñu mat si machine bu métti dëkk bu naan pootu ci télé laay waxee papa saw mi kayaar maag moom papa saw man bii bu faas bi uh-huh. wallaahi kon am na yoo xam ne wërsëgu suñu borom bu nit ku nekk lii sa wërsëg ngay jot ci am seen sens te yàlla ko muurloo te ko ndax nit ku nekk li nga war a am rek suñu borom moo koy def ci sa jëb yi te di nga ci jot kon xëy na lu nekk ci sama kanam lu ma war a amit damay xam ne lii laa war a am rek mais du ak yàmbare du ak ragal du ak ñàkk fayda du dara mbiri suñu borom la ku nekk lii sa wërsëg ngay jot. ku ci nekk lu sa wërsëg da koy jot. Poizin yaa ngi ci ñaata combat. man maa ci sept combat. sept combat ñaata victoire. am naa cinq victoire benn match nul ak benn défaite. waa mais yow yow yow ndekay sa palmarès dafa riche la waaw lan moo lan moo dugaloon ci Calcio. non Calcio manque adversaire moom moo ma dugaloon ci moom rek. parce que Calcio mosu woon bëre mais comme toog naa jóge ci xam nga crise bi xaw a métti ci man ma toog aw ma moo tax man. xam nga naa ni defe naa ni defe naa ni bëgg ngaa ko wulli. waaw moo daan ko ci 9 secondes laa ko. daan wulli ci 9 ah. secondes. laa ko daan. ci nga bëreel. man bëri na ak booy jokkaan non booy jokkal defe naa waaw. waaw bëri ak zoo bu Pikine bëri ak booy kajo bu Ibrahima Ndiaye bëri ak ndëri bëri ak énergie bëri ak calcio ak bërëb booy jóob bu kolobaan mbooloo kooku moomu daal. booy jóob bu kolobaan. waaw booy jóob bu kolobaan mbooloo sa digganteeg wulli. waaw combat bi lu tax mu gaaw. non c'est li mu ma foogee woon li mu foogoon moo nekk parce que dañu dem CNG mu ko foofu même man su ma la magee sax man bëri du gis na ne booy laa ci kanamam xam nga ak poids beeg ko loo xam ne xam naa ne su ma ko dafa naa ne loolu nga wax mooy lan Brésil. ci université bu mag bi. université bu mag bi de. waaw. <laughs> dégg nga sëñ mais léegi lan moo tax ñu bëgg la dugal ci lébi ay wulli ay calcio. maa ngi adversaire moom moo tax a dugal ci ñoom mais man classe Cheikh ña ngi laa war a bëre rajo xelam dem sama yoon. mais est ce que nga kaw ni nga def calcio. boo ko defaatee dañ lay tëj di kenn làmb gën mosu tëj nit. waaw loolu nag moo tax fi mu ne parce que jàkkaarloo nit di ko dóor nga jàpp ko yeew ko ba loxo jël kanam gi jox la nii. ngay doo ku. non ku fooy fooy jàngee foofu waaye ay en tout cas ban yow. Cheikh Niang maa la mun. Cheikh Niang Gris Bordeaux mun Bombardier maa la mun. Gris Bordeaux mun Bombardier maa la mun. waay yow waay yow waay ban daanu ci ku yëkkati loxoom ku yëkkati loxoom Cheikh ba mu wàcc mu daanu ci loolu booy boo bëggee kenn du ne nii laa ko sama patron moo sa patron sama entraîneur moo sa entraîneur man maa mun. toj na toj na toj na faas. waaye dafa dara. Tafa Gueye ma fa mën ak Zallo loolu jamonoy Senghor boobu ñun bëree guñu. jamonoy Senghor di barki giri di paa. waay yow ban giri. Eh, giri paa <laughs> Ousseyn mu neex ko mu naqari ko sama patron mun patron man maa ko mun. sama patron sama patron moo dugg Fass toj ko def fa 2-1. yéen benn ngeen am ci moom yéen 2 fa am. moo kii su da nga daa a xeex. dama àndaale sama kii mën ta xeex. kii mën ta xeex mmm, moo. xoolal kii te dàllam bi dama lay xamal leen. ya <laughs> kii day sóob moo def na ñoom ñoom man dana sóob dina ko xaaral ma wala protestant ah, ah. wala ne man maa la jëkk a pare bi yaa indi naa protestant man Ousseyn waaw Ousseyn su ma ko jàppee dama koy dànk ci seconde mais mais kii day sóob kii day sóob ñooñu ndax mooy tubaab ba wi billahi day sóob kii du eh. dara Ousseyn man kii maa gën a pare man dinaa leen daal lépp damaa mel ni ku bëri combat bi du ma ak yow baax na maa la mun maa la sama yoon rek moo tax mbokku. kii bu xamoon kii bu xamoon ko. waaw yow waaw yow waaw doo ko bàyyi. day dem eh, la ñan lay laaj Fass. na laaj Moussa xoolal na laaj Moustapha Gueye numéro 2. xoolal da nga may déglu fii. su bëggee man dan may fay ma bëre du ma maye dara man aw may maye. Ousseyn Ousseyn man dan may fay xaalis ma bëre moom lii muy def amul sens man mayewu kii dara ñu mu waaw man du ma la may man mayewu ma man sama doole ji mayu ko kenn damay liggéey. mais nag yaa ngi ko mën damay bëre ñu fayoo bëre moom waaye man maa ngi sama ngemb sama sac di entraîner su matin soir maa mu fop du ma man ka may daanaka. non mais Cheikh nag Cheikh nag. 6675 kilos la musuma la gis nga déggoo ma de. man kamay taxawal déggoo ma de man kamay taxawal déggoo man damaa ñëw fii pour di maye. aw ma lu may maye. man sama doole dama ciy liggéey ñu fay ma xaalis. moom moo toll ci maye. waaye man romb naa maye. seex musuma laa gis nga delloo orange. man daan ko tey seconde man man man mayewuma. xam nga maye na ma ci xaalis ma ko ne du ma sama morom. waaw yow yii muy ne amul sax moo toll ci maye gaaw su ma la jàppee dama lay daan ma waa Fass dama fa dara ay match nga fa am. match nil laaj ma Tafa Gueye numéro. waaye sarax ma la wax Jili Mbaye dama ko duma ba Tafa Gueye raam ci saako Jili Mbaye bu faas nga laaj ma Pam Ndoye bu faas Pam Ndoye bu Louga maa tax muy serviceur léegi di baax ko bàyyi bëri maa ko retraité kon yow min nga laay la dama leen a miin sam papa miin leen

laajteel da ngay dem Fass ne leen kan mooy Boy Niang dafa dugg Fass daan fa Mbiita Njaay mhm. daan fa Sadio Camara daan fa Amadou Kati Diop daanu fa kenn kor fa Jali Birama Coor bak mm. attaque yi wàcc mm. ñu xam ne lii mi ngi bëgg a jéggi dayoo ñu dem ci Cheikh Modou Karam Mbacke ne ko dimbale nu indil nu Boy Niang Fass jëlee ko bili ko gàttal nañu ñu leeral ko fii Moustapha Gueye yow maa la mën sañaa su ma la jàppee dama lay daaj ay seconde waaw dama ma sa papa man amul lu ma lay may sa papa dafa mën toj faas yow da nga waay yow waay yow sa papa mënul toj faas la Tafa ko foo newoon Tafa Gueye moo dàq bëre Sénégal moo Tafa ah, <laughs> li ma wax kii day xale de na laajte waat dafa toog ak xamul xam nga moom yaaguta dugg ci laa waay waay waay ma nga naa soo demee boo demee toog ñu Tapha Gueye amul ku ko dàq bëri Sénégal. ay nit a ngi fi toog ci plateau di tarara di. jàngal amul ku ko dàq bëri Sénégal nangu naa de. waaye sunu kër la ñëwoon ñu naan ko ABCD. waay yow moom waay ban ABCD. war ngaa wax mais nag na laajte waat de. Cheikh waaw lan waroon nga àndaale prothèse dent bi. non xam man fu ma nekk damay pare. man fu may nekk damay pare. mais may maye ji laa amul euh, maye. non non maye ji man maye ji muy wax man moo mën na xëy man damaa mayewut sama doole. xam nga doole non kii maa ko gën a xiif téeméer junni yoon. xam nga ne ñaata yoon nga ma fi woo ñëw fii. xam nga man am na ay temps xam ne da am na ñëwal ma ma xaw a camoufler. kii xiif gi ma ko xiif a tax ma jóge ba xiif benn xiif naa la ko cent. te bëre de. man dama am jàppale yoo xam ne ni kii bu amul promoteur dama am Saliou Khoule doomu Mama Lika Ba doomu Père waaw léegi am am nga Saliou Khoule. man ma am Habib Niang. mi nga xam ne mooy borom Thiès. Habib Niang bombul fenn kenn xamu ko am Habib Kane Habib Kane mi nga xam ne boo duggee Thiès daanaka. mën naa duy est mën naa daggal waa Dakar gépp bi Habib Kane ak Habib Niang mën nañoo daggal ak As Biram Faye. man kii li ma am da ko am. Ousseyn. te day taxaw de. ñii dañ ci lu leer laa la combat bi day taxaw de

soo ko sutee nopp dina dem ca penc ma wax ko mag ñi ñu woote waxtaan ndax bëggul gàcc mhm. su sutee nopp na daw yërmande mais man sama a jaar Cheikh Niang dafa nekk sama tànk dama ko war a dindi a jeexal téere yi man waaye yow maam da daan leen man sama maam fekk góor ñëpp toog mu ne leen li ngeen yor teg ko fii baa du ngeen dem ñu jox ko ki maam sama maam a tas réew mi nga daal ma lool kii dama koy agressé ko. ki maamu deful ki maamu tojul fenn. barke alxuraan sama maam da daan fekk góor ñëpp toog ponkal yi mu ne leen ku woyaani ba ñëw ñëwal teg ko fii. mbaamu duma la loolu moom la wax ngoñ nangu de ngoñ waaw ngoñ daaw wooy di woyaan ku ma sa woyaan mu dab la nangu kii gis nga kii kooku tojam Cees la yem ngoñ ngoñ wax kooku tojam Cees la waaw xam nga li ngay wax de. dafa toj ngooñ ngooñ moom oh. ngooñ moom. ngooñ yooyu daan def nga la boo ko masaana tooñ. da leen di man sama maam da daan fekk ponkal yi toog jox ko. bañ nañ ko ba nañ ko daa ngoñ ma samba demba lem ngoñ takka tulub téere la doo leen di agressé ji mais nag kaay ma wax la benn affaire. ban def ko ñaari affaire Cheikh Niang waaw man benn affaire xajut ci man. ñaar beneen baa ngi ñëw. waaw beneen baa ngi ñëw. <laughs> parce que yow kii. kii. seetlu nga combat moom sama sër laa àndaale moo ko teree neex su bëggee ñu maye lancement bi. yow xanaa ku bëri jinne yi man man xam nga boo may waxati mbër man xam man boo taxee naan ma mbër mi. ay reen damay ku bëri ba bëri jinne yi. dama dama ma bañ de ma ne bañu ma la du ma la bañ. bul ma suufeel ma bañ de ko bañ. gënoo ma nekk champion non suufalu ma la de champion nga. gënoo a champion nga moo tax ma passé Thiès ñëw soo doon doon champion du ma ñëw fii dama laa nangul sa champion mais dama ne xam nga kii daf ne ma xamoo kii ma waaw ki nga xam ne bëri na lu mot. pili foofu laa bëgg nga ñëw bëri jinne ko la dama tajee dafa naan may foofu foofu neex na Demba courant bu Kolda jinne la rek yaa ngi dégg Demba courant man ma dugg Pikine toj ci moom dalay maas toj parcelle loolu nga bëree moom ji Kolda ma fekk ko dëkk bu naan Saara Jaaye foo xam ne kenn ñëw faa teg sa tànk ñoom ñii ku leen mayoon ñeent fukki junniy million ak i dof duñ dem duñ dem léegi yow nañ ko teg Thiès ma fekk man doo nga dem. nañ ko teg Thiès ma fekk ba ma demee damaa dajale marché ba jaaykat ya nekk ca marché ba te dëkk Bawol di samay mbokk ndax man maa ngi au passage maa ngi nuyu waa Njaarim parce que man Jurbel laa juddoo ko sëñ Bay Sarr mm-hmm. di doomu buur géwél pire dëkk di di profité nag di jaaree waale sax sunu xalifa général que sëñ bay saar bi sëriñ Mbaye Maane Sarr yàlla na ko sunu borom jéggal xare ko àjjana yokk ay leeram di nuyu waa Njaareem yëpp waaye dama ne la kii. làmb doy waar rek kii dara waaye ñii du ma seen. ma doole mënoo ma dàqoo ma xeex ma bëree. bis bu arbitre soufflé nga wedd dama ne samay preuve ba fekk bi. dama lay bu suñ combat taxee bu arbitre soufflé mu wedd lu mu ma sama wax. su arbitre soufflé doo ma def dara. soo ma dóoree ma soo soo bëree ma bëree. su ma dóoree doo comme bii ñëw na def ko nee rek mu gën a mu nga mun ko am face comme bii ñëw na mu fii. waaw kii non na mu teg ko fii. ñu ngi leen di sant am ko rek. ba tey dafay dafay ba ni ñu ko amee dafay kii ah, ñoo ko nee waaw comme bii ni mu def nii. yow yow kii yow yow. tuwéem gii mu sumb fii tooñ na leen. non dama a man dama bëgg dama bëgg ñu bëree fii Cheikh Niang ñu maye ko. fii moom affaire moom man maa man damay ut xaalis ku am sa doole di ko may garaaw la mais man mayuma kenn dara man dan may fay ma bëri. ñu dem non combat bi faw mu taxaw. non déggoo ma de. combat bi moom déggoo ma de. taxaw bi moom la kii waaw su toogoon Fass. toog ak woo jiili mbay. woo dafa fa dara bàyyi ma ak Fass Fass dafa fa dara ay machine nga fa ah, amee. dama la ko doon waxtaan ci suñu biir ndax ci sees ña laa jëm den ne ko sama rek doyal de. yaa ngi jëm foo xam ne boo ngi tàggoo. Cheikh Niang yow soo tojee làmb nit ñi xam la. kon est-ce que tàggoo na bi muy ñëw. non tàggoowul. defu fi dara defu lu ma koy bañee defu defu lu ma koy bañu ma la déggoo li ma la fi la bañ ci yow. mais nag mais nag est-ce que soo soo soo laajtee duñ leen delloo avance parce que yow xam naa ne bëgg ngaa bëri. déggoo li ma la wax ñun Fass dafa am lu ñu manqué woon. dafa am lu ñu manqué woon te perte bi moo xeexe sax. dama ne ko kon yow seetaan nga ko. mais nag kaay ma wax la benn affaire. kii kii ay ay ay duraat yu sax. déglu ma wax la jamono yu Senghor la yor man dama yor xeexu génération Macky Sall ba ci Ousmane moo tax ma mën a xeex moo tax ma man a xeex. bokkuñu moo tax ma mën a xeex. Oh. xam nga ne xam nga ne yow yow yow xam nga ne yow. Mhm. Senghor kenn du moom. kooku wàlliw woon la. kooku mooy wàlliw mhm. kooku dafa doyoon waar. Mhm. Senghor ba tey lim fi def jógu fi. déedéet ku ñëw ci ginnaawam ngay toog. loolu moom am na xeexum Senghor kay moo ko wéree laal nga bu yàgg. Ousseyn maa moom bokkuñu dama am Saalum xule. Kéba Kanté sama nit Kéba Kanté bu ko laal de bu eh. sama nit la yow yaa du tudd Keba Kanté yow dama koy na bàyyi Keba Kanté yow Keba Kanté ma lay jàppale ma la yow dama bàyyi yow mooy sama Keba Kanté eh, na réglé Keba Kanté maa ngi moom contact waay yow waay dama sara ku ko dàq bëri Sénégal taxaw Keba Kanté ma wax la ko di jàppante ko ñu bëri di contact booba dara eh, xewul booba dara xewul de di bokk moom di contact fii ci Wiraas. man dama ñëw sonn ñu ubbil ma a dugg. waaye kan mooy fëgg. dama sarax mooy. fëgg. fëgg ma am ak soo la a amal la. kan man la ëppale ci Keba Kanté téeméer junni yoon man dama am Saliou Khoulé. man dama am Abidina Abidina dafa diis kan. doo ma bàyyi ak Abidina. ay Habib Niang. ma bàyyi ak Habib Niang Habib Niang doomu Thiès moom. man bu combat bi taxawee nga xam. kii Habib Niang ko nar a fay ñu bëri. Ousmane Noël Dieng ci kaw kii mais la wax. kan Ousmane Noël Dieng benn Ousmane Nawal Dieng moom xam nga ku ma koy bàyyi. moo waaw déglu ma rek da nga ko say jàppale attanu ko. as biram fay gaynde nguraan gi laa koy jox. yow yow kii kii. ñun waa nguraan waaw. waaye kii su may wax ak moom muy tudd ay ay. as biram fay as biram fay. maam maam Saalum Khoule doomu li doomu Mama Ali Kaba doomu Père Lat Diop. ñooñu du Ousmane Nawal Dieng doomu ndey Ahmed Saloum Saliou Khoule oh. waay Saliou Khoule man. eh Baye Saliou waay na ma bàyyi eh, waay man Saliou Khoule. Eh. non Baye Saliou eh, Saliou tur bi rek a ma jaaxal man damaa am doom di tudd Serigne Saliou. waaye nag xoolal. wuy ma wuy ma ne tudd pas à Saliou as biram fay gën a di Saliou waaye yow waaye as biram fay fu mu toj. xam nga Saliou toj na àdduna est-ce que xam nga as fay. déedéet non Saliou. voilà mu noonu non dégg nga yow da moom dafa diis ba at kenn attanu ko. waaye yow. Habib Lat Diop borom. élection yi passé moo toj Thiès. élection yi passé. Lat Diop Guèye moo gën a di fop. maître Lika Ba notaire ba mag bi moo gën a di fop. mais léegi li ma bëgg a xam mooy yow bu la bu la promoteur seetsee bëgg sa combat xam naa ne Sidi Diakhaté moom bu gis lii di la bëgg a woo kii Saalum Khoule moo tax ma bëgg a jël kii bu kii ma xam ne doo ñëw man xam naa ne doo ñëw ma dem fa bu dikkee Thiès du baax ci moom kii na yem fii ma rey ko fi rek mais Thiès waaye doo ma sarax yow nga naan fii dama koy dóor mu xam mais Thiès moom boo mooy dama koy rey. mënoo ko dóor mu mu mu mu man ni eh, ko bokk kii ma dóor may daanu yow doo ma sarax. Saliou Khoulé day dugg ci biir géew. am Kéba Kanté am Ousmane Noël Dieng. waaye doo ma déglu dama ne la Habib daa diis. lu nouveau maire de Yoff. Habib Niang donc man man di bàyyi ñoom ñëpp. mu koy sot Habib Niang duma leen. Cheikh Niang maa la bëre kooku la Macky Sall bëre xam ne daa gis maa mën naa man naa doon xoolal. booy man mën naa doon sa entraîneur ci côté bi ci xeex ak bëri. doo ma dimbal yow soose dàq la bëre fop di sama entraîneur. soose ma perkat la bëre fop. soose mosuma ñeme. waaye yow ay doo ma sarax yow. soose soose mën la jàngal bëre. soose sama boy la woon. waaye yow ñeme. waaye sarax ma nga naan ay soose. waaw kon baax na mun sa entraîneur bilaay booy ña ci yow waay moo daan Amadou Kati Diop jël bu Sénégal yëpp waay sarax mu naan ay booy ñang demi flexion la def sulli ko Amadou Kati Diop amoo amoo mbokk mu ko mën a jëngal barke maam ci jamono demi flexion la def sulli ko sarax moom sarax moom naan Amadou Kati Diop waay yow waa kii lu muy def nii moom yow su ma la jàppee nga <laughs> am na yoo xam ne nag gis nga yow yow da ñuy tooñ yow yow yow yow parce que kii lu ko fi indi 5 tonnes la 5 tonnes kan mooy 5 tonnes kii xaaral ma bàyyi parce que ma woo. doon romb non déglu ma dafa ma doon woo doon romb. ma xam ma bàyyi ko mu nuyoo 5 <laughs> di wax ginnaaw bi sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur xam nga di di bëggee dof yëpp di bëggee àdduna di bëggee képp koo xam yaay bëggee 5 tonnes dof bi ah 100 pour 100. lan moo waral ma woo rek nga nga nga doon romb ma woo nga jàdd ñëw. waaw xam nga àdduna lépp teraanga la quoi. Mm-hmm. tey man su ma amee sama option te nit amul option neexul. xam man dama man bi ma bëree ba pare ñu may proposé ay adversaire mm-hmm. man ma taxaw ma ne bu ma amu Cheikh Niang bu Thiès Tapha Gueye numéro 2 la sene damay bàyyi làmb mm-hmm. mais kii ma ko xam la war na leeru alxuraan billaahi wallaahi mais neen bu bëggul nag jurul nga si débat quoi non mais kii mënu nekk tapet kii mënu mënu mënu doo dix nit ñu daan te xam ne kii bu daa daanoo daanu ba tas Cheikh Niang leen ngay dégg leen laaj ma ci lan Cheikh Niang dóor na Cheikh Niang dóor na daan na Cheikh Niang bëri dé bëri dem daanañ ko jurbel dégg ko dégg ko barke leeru alxuraan doomam bu jigéen parce que kee xam na seen yow kañ lan la daan war man waaw mais kuy bëri moom kañ lan ko daan mais man bokkul yow li yow li ma daan yow li daan doo ko daan ba addunay tukki li ma bëri doo ko bëri ba addunay tukki yow kenn la man bin may wax kii moo ma indi parisien mi mais yow man yow taxoo maa jóg nga ne yaa ko mën. maa ko mën fop Cheikh Niang mi foo ma lijjanti ko ci ay secondo parce que ki dafa ma ah. merloo. xam nga man sax dafa am lu ma am sax lu ma xaw a jàpp. depuis trois jours. dafa a parce que sama benn xarit bu ma foondool sama ami d'en face ñoo bokk classe def lépp. Hmm. daf ma mere. te loolu moom ma xaw a zëne. dafa la mere ndax dama dem seen kër barki démb. Ah, ah. fekk ko muy lekk beñe. ma ñaan ko beñe bi. ñaan ma ko sax moom mooy yëkkati may ma ma ne baax na mu ne ma ne yéen ku leen ma ñam na ko neex na mais su demee yónni rakkam ne ko waxal sama yaay mu jox ma beñu 500. Mm. ma ne ko nag 500 dafa wuri mu ne ma mayee beñe mm-hmm. bi dem lekk ko mu neex ñi ma ko may ñëpp ñu kontaan ne bi dafa neex mais su ma ko xëyee woo ko di ko remercier ne ko vraiment si beñu yaay bi rafet na waruma ci mere <laughs> mais dama wax mu ne ma mosoo wax lu ma naqaree nii nit musuma wax lu ma naqari mais mais na kenn du ko waaw mais mais mais beñe bi neex na rek mais sa beñe yaay bi non moom moom ma ne sama yaay dafa commencé jaay beñe depuis démb xam nga loolu ëpp na xaalis beñe la ma may te yaay moo ko ne ko sa beñe yaay bi neex na mais loolu vraiment yéen wax leen loolu war ma si mere ah mais vraiment vraiment il m'a fait mal depuis deux jours moo tax nelaw parce il est parti mes meilleurs amis sa benn yaay loolu lu ko nit mais ah. na may neex na rek. Eh. mbaa benn bi maire bi defar neex na. mais a yaa tooñ de. mais mais wax eh, wax da nga koy rafetal da nga ko tàgg wax ci. non. wóor na yàlla yow ko waaw. man bu ma xamoon ne kii mu ngi fi du ma fi ñëw kee comédien la man moom danga ma yeb quoi version bi ma dugal du man yow maa bëggut a ñëw ci yow sax ah. yow ñu woo ma maa ngi ñëw ma yow yaa ngi eh, daanu am ndam boobu ba léegi bi ngay bëri ba léegi ma soo am ndam te yaa ngi bëgg nag maa daan gir doo bolokaas maa daan bolokaas waay yow maa daan sandaaga bolokaas bolokaas jamonoy fàllu man laa ma bëgg ma ci deux ans mais man laa ma bëgg ma ci deux ans bolokaas eh bolokaas rek ko fóoru sa de eh bolokaas rek fóoru sa de mu sol aj ko ba ci kaw tàngaay wi ki toolam bi mu raasa raas bi ba mu set foog na mën na ko setal kii jamonoy Senghor la doon bëree ay bolokaay loolu jamonoy sport de Ousseynou man lamb man ma tooñ ma tooñ da nga may ah, ah, ah, bi eh, kii ñun bii du suñ premier wax de njëkkoo maa woom pour maa moom dama la ñëwuma mhm. ndax man su may ñëw damay ñëw ko dara ñëwal mais kii waruma tax may déranger ba Thiès di paas di ñëw di di wuy si kii parce que dama dégg ay waxam dégg ay version xool ko ma xam ne kii man waruñoo bokk dara kii bokkuñu sax école bay bokk kalaas. man damaa ko man dama judd rek dof. loolu yow daanu ba tas man ngay wër man wëru la yow waaw boobu ngeen waaw yow yow ki daanu ba tas loo ciy wër xam ndax ma wër ko ah, yaakaar si laa non d'accord non non mu ne sama kon loo may wëree man damaa daanu ba tas bàyyi eh, man maa amoon sama choix. non non bu dee xoolal da man du ma bëreeg dof nag nee dof la. non man non dof man du ma bëreeg ab dof. mais moom dafa jàpp ne yow yaa gën a yomb eh, dafa jàpp ne yaa gën a yomb. déedéet du de du lool de. jàpp lool de jàpp lool xam nga lan mooy problème am. mais yéen mais yéen dafa ñu ko def tournant parce que man am ma ko parce que bëgguma combat bu yomb te kii. yow yow li ma gis yaa ñeme yàlla yow. kii mën a sangu pale wala ay comédien ngay bëri eh, kii ñeme na yàlla de. Eh, kii dafa ñeme yàlla quoi man a samay morom laa bëri ay jeune dari affaire coow dama toog mais maanaam amuma ci 200 sa sa sikkim bi nga wata ba set nii di jéem a xala ma yàq ma ay nii barke Seydina Mohamed alxuraanu mag xam na ne kii waaye doo mu ndax Ousseyn dimbali ma bu mbër daanoo fii dañuy am problème dindi lii ngir yàlla Ousseyn bi lay taalal ko filim Ousseyn xam nga tax may rek maa bu sapeur ñëwee fii nii yaa yaa ngi da ngay diglu waxtaan ba mu diglu ma dem ñibbi man. waaw waaw wax. kii da wax dara kii du fi wax. kii du wax de Ousseyn. ndax kii amul lu mu wax kii boobu xoolal wax. xam barke dem daa jël barke dem laa la wax de. barke Serigne ko bàyyi kenn du ko toppati bu dem lamb. jakarta la jël fay ko taw. xoolal jakarta. waaw dëgg yàlla wax rek lay def. sëñ bi waxuma yow yow ñaar ñaar ñaar a si am yéen ñaar ñaar ñaar ñaar a si am neel un xam boobu la ñuy nekk naan ay dama jàppal ay loolu man maa lépp xaalis neel un xool maa lépp xaalis maa lépp xaalis yow nga dox dox ak yéen way ba fii ne da nga am xaalis yow nga dox ba ñàkk ba mel nii da nga am xaalis ay jàppale yaa ngi dégg maa la ëpp xaalis fuuf mën naa laa jël ëpp leen ngemb waaye comédien bi danaa bëre ak moom xanaa ko sa waa géej waay bàyyi ma. man nag budul dara nag ba lamb daal mais ñii dañoo mën a jeex xaaju 50 dige. maa ko ay victoire.

man yow du ma yow maay jiwul quoi ma yab vraiment. ndax man jàpp noonu xam a neex si àdduna. kii moom barke yi bu dee man man man man soxla wu ma ko du ma bëreeg dof. Ah, man du ma bëreeg dof de. man nit laay bëreel. ak ku def dara mais dof. ku naan dof laa ab dof laa man damaa dof. ah ay damaa ma laaj. non de man maa la laaj kay. waaw ma ne. kon léegi mais mais soo ma laajee mais man ne du ma kii kenn musuma proposé moom day wax ne. mais kii nag mujj na la kii mujj na laa ñemee. day sóob kenn mu naan xaw ma. Ousseyn amul ku ma ne ma. Ousseyn barke alxuraanu Màkka laa lay toog naa président bu bool production woo ma ne ma top 5 ma ne ko bugguma kooku. parce que kuy sangoo ci ay mbedd mel ni dox 5 tonnes damaa juum 5 tonnes ma ne ko bugguma kooku parce que wax na fi wax benn wax Alioune Seye 2 xaw ma waxu dof yooyu. falaa que ni ko waxoon Alioune li ma waxoon Alioune Seye 2 man jàpp ma ko sax entre loolu ñoom la. non Alioune Seye moo mais dama la Alioune Seye 2 jotewuñu dara de. Alioune Seye 2 damaa bëre. boole ma benn maara maara bi génn loo ma sarax ñetti basang yaa ngi dégg toolu am naa droit ma bëree pare. waaw yow ay piliers nag ay basang ma la waxee maa dafa maa génn loo sarax ñetti basang ne ma combat bi dama deux secondes baa gi ñu daan la Alioune Seye dem boole ma daan ma ma xëy laan dem fekk dem ma la genn ak basang. waaw yow Mara ma li ko Mara a yow lamb bo a moom du ci gabarit du ci du du ci dara. kii moom non kii moom ay wax non non man eh. seex ñi ëppale wu ma lu ma koy dëkku du may dugg seex ñi ëppale wu ma lu ma koy man waaw man jabar nga may tëkku. waaw kon la kon. waaw kon yow kon yow kon yow jar ngaa xool. xanaa da naan kon jàppal ma mag ñi duma ëmb jàppal leen ma gone kon kay kii xam nga ne du mais da may déglu ndax bu nee Cheikh Niang laa soxla Cheikh Niang du dara. mais Cheikh Niang bokk sa mais Cheikh Niang bokk sa daanu yow donga yaa ngi daanu. kon kay def naa dara kon kay daan may la li nga def. moo gën waaye man li ma def jarul ma koy wax wax maa def jaadu na. man mënoo maa waxal man maa mën a def ndax xamoo li def. léegi maa taxawoon ne damay bëre Cheikh Niang Tapha Gueye numéro génn naa lay la ndeen moo gën de jëlal Tapha Gueye Cheikh Niang mii nii. man bëree la Tapha Gueye ak de Guiers. Cheikh Niang xam sax ma bëree bëree moom. déggoo li ma Cheikh Niang xam na ma doon bëree bëree ak moom. déggoo ma de. bu dul dara def na dara si lamb te bëri nag ay champion. man ñu may proposé ay adversaire yaa ngi dégg te koo mi ko doon mu ne 5 mais man ma amoon sama option ak sama choix comprendre ma la ne Cheikh Niang mais Cheikh Niang nawloowu ma ko. barke leer ma la nawloo ndax ban ma invité ak yow ñëwuma ma. te invitation bi du maag yow. kii boo ma tooñ rek Ousseyn ma ñëw ci ma ñëw ci moom. kii warul ba may ñëw ci moom. ma ñëw ci moom. may ñu ñu wax. déggoo li ma la. benn daf maa woo. déggoo ma de. benn promoteur daf maa kii warul ma ne ko Cheikh Niang la pour ma Cheikh Niang ah, laa ma yaa ngi dégg mu ne ma Cheikh Niang may sax boolewuñu ma tëgg ko. waaw kooku kooku loolu loolu soo am la loolu ku ne ku am na ñoo xam ne boo nee leen Yékini sax mbaa Bombardier ñu ne leen may sax ba tëgguma Bombardier loolu ku ne am na ci droit mais yow dama ne la yow yow yow moom li ma def doo ko def ci àdduna ci làmb te yow ab nee nga dof nga ab dof kenn du bëreeg moom nit ñi nit la ñuy bëreel. xam nga ne man xam nga man na xari xam nga ma ne genre yi genre yi ñoo ne mbër yi ñoo tax kenn nawloo wut mbër. koo wax ñu ne mbër dof la. te mbër du dof. yow yow man dof yi dinaa wax ak ñoom. mais léegi yow la moo gënoo maa ndax koo nee dof nga kay. yaa ñu tooñ yow mi taxaw ñu ñoo tax ku wax ñu ne mbër dof la. barki alxuraan ku wax ñu ne mbër dox la te loolu man damaa miti mbër di yor jabar di yor doom di sol rafet di yor oto bu rafet di dëkk fu baax nga taxaw naan mbër dof la mbër mais loolu mais taxul nga doon ma doon dof de mais boo ma gisee xam ne man mii du dof te du wax waxi dof mais yow fu la fekk waxi dof nga yàq dem ba ca digg sàndgee sumee ko ba deseb kalson di sang naan pale nga dem mënoon ngaa dem pale boo demoon pale dan lay rey pale maa a kii di wax ak kii nga bëgg cee dugg kii da ko bëgg a da nga ko bëgg a boole ci biir gaal gi wala. man kii ma jaarale na ne. maa ngi ko vraiment amoon naa naqar li ma wax tout à l'heure sama copain boobu mais ki gën na ma yokk naqar sax parce que man kii man foog naa soo def invité surprise da ngay andi parce que man écrit bi ma bokk ak ak ñëpp xam suñu niveau intellectuel fu mu tollu mhm. man genre vraiment souhaité wu ma bokk ñoom plateau. Cheikh nag nee naa la moo ma fi andi te dafa am lu ma liyee ak moom. Mhm. ndax dafa am fu mu toog wax ñu wax ma lépp. te li ma ko wax tout à l'heure rek sama patron moo mun patron Gris Bordeaux moo mun bombardier Tafa Gueye mooy sama entraîneur. loolu nanguwuma ko ndax xamal ndax xamal ndax nanguwuma man foofu muy wax na ko bàyyi. déedéet du ma ko may parce que fi muy wax na ko bàyyi ay patron moo mën sama patron loolu amul man sama patron dóor sama patron mu wàcc ci kanam mu daanu ci kaw. ñaare ba mooy sama patron dugg faas jàpp Zallo mi fi mënoon jaaxal leen takk ko sànni ko fële Tafa Gueye ñëw mu karkaral ko jàpp ko sànni ko fële kon kay wax dëgg yàlla boo bëggee mooy université bi waaye ban. boobu waa du la défense université. parisien yi nii daa andi. prothèse andi ngeen ci ma fekk ko fa. dem sumi tubéyam ma fekk ko xoolal kii jox leen ko tubayam man fu ma fekk sama. yow yow moom dinaa bëri ak yow yow. soo soo fii ñu maye ko léegi léegi man yow. maye moom taxumaa jóg damay liggéey. man dama wut xaalis. man moom barki yàlla man doo ko kii soxlawu ma ko. kii dem di. kii sangoo foofu. yow maa la a seer yow da ngay xel loolu yow ba nga bëri la du ko sa combat affaire boobu. naa ñu proposé ma damay daan moo tax man. nga maa duma yow. yow waaw. Ah. yow sa loxo yi ko dégg yow mën fi ñu nekk dañu xam sax lu ñu. man je suis jeune. y' a pas de film y' a pas de femme. la ba léegi. waaw yow kii ñi mu bëreel ñi mu bëreel dëkk nañ ci làmb. yow man ma bëreeg rakk Forus indi koy ba maar ma mot ko. Forus benn rakam rakam làmb. bolokaas. waaye man su ma neexee man ne bëre naa ko rakk Bombardier wala bëre naa ko rakk Tapha Tine. waaye loolu da ngaa am yow bu dul dara maa gën a seer maa gën a siiw yow maa la xaalis ñaara ci bokk ëpp lay jàppale. ay wax dof ngay wax ci YouTube bi mais man ay combat ngay xool gis ma mais man doo gis ay comédien man ngay xool gis samay combat. yow ba yow sa benn combat laa seetaan. sa mooy bi nga xaw ma yaa comédien boobu noonu. barke sëy barke leeru alxuraan comédien la billaahi wallaahi ko def. kan ma ko dañ ko duma ba daw. barke sëñ Bamba. kon kay sens yow yow non yow Ousseyn yow boo naa fexe kii. man eh. dëgg. yow non non. sa saar ñooy yàq lamb ngay jël saar yi xam defuñ dara ci lamb di leen favoriser. comprendre ma la fi ma considéré que dama siy def code nag xoolal ni ma defee kii si mu wax ji jël waaye nan jënd face waaye man ma dëkk géej waaye eh, dama la maa si def code de moom barke Mouhamed dootu ma tudd turam waaw boo ko bindee sax man nga ko bindaat muy man supprimer la laa def bokkatoo ah, damaa sant yàlla kii dama xoolal yoof la ma fekk yoof may dox ci mbedd appel lu toll ni appel maam Limaamu Laay bi nit ñi di wuti ñaan mu kar ma ci mbedd yi ah sama téléphone ah, ah sama téléphone. seen nag laa bëgg a eh, seen nag. kon xam nga mu wax comédien moo gën a ne comédien parce que man kii gis naa ko ci appel bi. waaw dëgg yàlla. gis naa ko ci appel bi mais bokkuñu. waaw yow eh, bokkuñu de. kii moom la war a xamal ne deful tous si làmb la bu doon dox kenn du ko kar di photo ak man te man damay def si dëj rek parce que damay def si dëj ñu may photo ak man nan bàyyi ci xel ci ay dëj sax laay def barke leeru alxuraan meer di photo ak man sëriñ Tuubaa damay dem si dëj la barke leeru alxuraan billaahi may jaalam meer boo xam ne dafa gaañ muy photo dalil ñoo xamal la sa ndof gee tax. du du du eh, loo def ci làmb de. mais kii nii laa la xaw ma xaw ma xaw ma nu mu tudd. comédien bii laa la wax man ak moom làmb boole wuñu. soxlawu ma la sax. kan mooy neewi. déggoo li ma la man ki arrêté bi daa baax. ki arrêté bi daa baax yow may la bëgguma ko. ki doon bëre moom barke barke leeru alxuraan bu ñu bëree moom soxla ma ci conseil. loolu yëpp barke leeru alxuraan billaahi wallaahi. loolu moo trompé say morom yu bëri. nga ne moo trompé ñu fi jaay man du ma yëkkati weñ du ma naan doom. barke laay def soo eh. jàppee maa la mun waa la kuy naan doom xam nga ko. waaw yow yow doon sarax waaye doom kuy dama xam kuy sa dama xam kuy Saliou Khoulé. waaye kan mooy Saliou Khoulé kan mooy Saliou Khoulé. dama xam kuy Saliou man loolu eh, sa rentrée de eh, comprendre man dama xam eh, kuy Saliou Khoulé. bu ci sori. barke Serigne Bamba di jëntu ma Saliou Khoulé la li ma dama xaaral. contrôler say parole ci kooku. waaye contrôler ma dinaa reen a ko kii yoon. contrôler say parole ma waaye dinaa reen a pas ko waaye yow kii comédien la quoi yow kii ci mi wax da ngaa mën a may sax cent mille muy nekk fi di xaw. kan Saliou Khoulé ay dimbali mu waaye yow ko yow comédien barke Serigne Saliou kii bu ñu bëre ak moom wallahi lesi laa la waatal billahi wallahi wa taala man ak moom li mu yor nii li doon bëree man laa la de barke yàlla ba du wàcce ma dugg mu daanu mais ñi ak ñooñu bokkuñu ah, ñooñu ay comédien lañ taman mbër laa non ay comédien lañ taman li muy ma loolu dugg na samay barke ah, wallahi li si boo ko yóbbul sama as du laa soxla man su may bëri ko damay bëri ko ay dinaa bëreeg yow yow sa bopp bi ni mu mel nii rek yow. du ma bëreeg yow ñu foto ñu wala ñu def boy bi fàtte na trop. def naa la ah, appel ay appel. di dem di jël ay téléphone naan kaa leen. kaa kaa waaw mais loolu daa jël ay appel. Eh, appel eh. appelu seen naan waaw mais non. ku la teelu gaañ na def. ci appel lan nekk sañse ne la def da nga ko war a nuyu ngeen dem mais taxaw nag gars eh, indi ma sama téléphone indi ma ga da da man waa kii lu muy def nii yow. damaa daw laaj ko. ndax man xaw ma lii nit ñi xam nga foofu ma dem fa. mais dof nag dan lay yóbbu dalal xel bu Cees boo ñëwee man am naa fay xarit. yoon naa ay kayit yoo xam ne boo dikkee dalal xel dinaa la dimbale ñu faj. xam nga tax ma dem fa. appel ba man du ma ah, kam du ma ah, nit da ngay am xel yow nag doo nit dof la waaw da ngay déglu man du ma kam dama fa amoon gel man du ma kam gel waaw da ngay déglu man du ma yaa ngi dégg man du ma laayat kii daa yow waa dégg man dama fa amoon gel yaa ngi dégg dama faa amoon gel te ni da am colère te man benn gel amoon. yaa ngi dégg man benn gel laa amoon. waaw yàlla dogo dofal dafa dee mu ngi suul armeel Pikine. dafa dafa génn àdduna rek. rafetalal sama dee dafa rëy. dafa dee. benn gel la amoon foofu la dëkk yàlla dogal dafa dee dañu ko armeel Pikine dama koy ñaal na bu demee foofu la waxi waxi dof daal kii dof ji mooy mooy lan ay la ay moom affaire la da ngaa dof moom. yow moom def naa code non da ngaa dof moom garaaw. code bi ma la doon may sax man ku dof moom. ampolarité bi ma ko doon fait yaa ñu tooñ Ouzin. ndax plateau bi Wassare Lamb Wassare Lamb waru leen a jël dof da ngeen a war di jël ñu nit a ñuy toog di wax nit. ay nit ku gaañu ngaan fu demee foofa na am ay ay adversaire yaa ngi dégg man alliance ba la taxawoon na man tee fu man damaa jug indaale forme de planqué wu def nii moo tax da ngaa palanke wu ba tey nag. mais sa déca décanté goo ba tey gi de da ngaa palanke wu. ñëw waxi ndox sax waaw man na man man xoolal man bañ naa ba xoolal promoteur bi ndox suñu ko ma xam la laa ko. kon baax na xool yi muy def. xoolal promoteur bi ndox suñu ko ma xam la laa ko. waaw kon baax na baax li ma wax kii bu doon kii du ma ko bi ndox suñu ko ma a kii dama ko woon yaa ngi dégg Cheikh Niang bu Thiès bu fekkee da may fay maa la ko ñaan li laa wurusal boo jubóo moom man bu ma fay man moom ba tase appel xamal ma ko na fay na man lu du ma bëreeg dof waaw mais maa bëgg a bëre yow. waaw mais dof man soo nit woon soo doon nit soo doon nit ñu bëre waaye nee nga dof nga. xam na tax bëriwul da nga ne ma dof boo ko nee déglu ma de te dof sax eh. du am licence. Eh. kii waa CNG ñi ngi def erreur. waaye man CNG koo fekkee nañ ma laa la bi ma dof kenn waru koo jox licence dof warta am licence eh. nit lan war a jox licence dof bu la ree nga pet soo ko ree ñu tëj la ci kaso bi eh. kon dof warta wut licence ah. eh, Bilaa Sène Bilaa Sène maa ngi wax ak yow di la lancé benn appel di la wax ne la kii warta am licence ndax ab dof kenn du ko jox licence lu ko dal ci làmb ji yow la te moom it kum fi rey dinañ la tëj ndax moom dof la wax na ko te wër kayiti dof la yor ku yor dof nag da koy ba mu dem ci ay moroomi dofam. man nag bëriwu ma dof. parisien bu fekkee ne da bëgg dof yow. bi na nga dem buntu pale nga jëm man mënoon ngaa dem buntu pale barke leeru alxuraan damay dem pale demal mu daanu naan stade dafa woon màbb suñ ndax ñu bañ a loolu waaw mais c'est maa ko ñaan ku baax dina ñaan loolu dañ maa lam deme la moo tax ma ne yàlla waaw ay doomu aadama fa ne ay bakkan man kee laay waxal comédien bi laay waxal parrainage <laughs> bu yàgg man koy dama ko supprimé démb ci fajar tey sooga ñëw muy nekk fii di dof dof naan gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmmaarloo naa ne mën naa ne plateau bi plateau bi spécial la tànk yi nii <laughs> mën naa ne plateau bi plateau bi spécial la tey nag ma dajale woon bi ki nga xamante nii mooy Cheikh Niang bu Thiès parisien bu faas ak cinq tonnes mi nga xamante ni mbokk yi moo waree fee ci géejuwaay bu jugee waa géejuwaay yëpp dañuy ndax moom euh, defe ne porte parole la boo xamante ni nii euh, moo nekk fee ca ca ca géejuwaay li daan liw jaan di wax naan la moom porte parole ndax bu waxee nit ñi dañ koy bàyyi xel. Euh, lan ngay tàggatoo. mais damay wax si benn affaire géejawaay. man maa ngi jégalu ñaar ñi géejawaay laa la wax. dafa am yoo xam ne dafa rafetul. man li man moom su ma waxatee ñu ne 5 tonnes waxati na li sa wax man dof laa mais géejawaay boo fa génnee Balla Gaye 2 génn fa génn fa guy gi yaa ngi dégg ak Alioune Seye suñu papa liiru jaan gi des ñëpp kenn baaxuñu surtout mbëri mbëri mag yi nag laa mu mbëri mag yoo xam dañoo siis xool dégg li ngay wax soo yónnee ko ci man la maa dëkk géej waaye loolu man la engagé boo war nañ la tëj cinq li may wax dama intéressé bu fekkee doo bloqué kii ba mu wax ba pare li may wax daf ma intéressé yaa ngi dégg taman porteur de voix la yaa ngi dégg te bu ma waxee ni ñu ne li ma la dafa nekk sama xol te dama koy tudd dama ne géejawaay 100% bi dañ koo war a defaraat bu baax baax bu ñu waxee waxu 100% géejawaay tey doo gis benn ndaw boo xam ne day nekk wax loolu li tax ma wax ko xamat laajoo ma ko waaw léegi laaj naa la ko tax nga non dama ne laajoo ma maa jékki-jékki waxoo. baax na mais Tanor yi laa Tanor ñi ma la si tuddal ni ñoo fi baax. Balla Gaye 2 ak Guy gi barke Seydina Mohamed man nag fréquenté ma mbër bu mag ànduma ak mbër bu mag mais ku ma def lu bon ko wax. mais ki ma lay wax nii barke Serigne Bamba baaxul guddi baaxul bëccëg te barke leer alxuraan jurul nawloo barke Seydina Mohamed. dalaa liggéey. moom xam na ma xam. barke Serigne Saliou Mbacké mais am na yoo xam ne dafa rafetul yaa ngi dégg affaire ay soxor yoo xamante ni mooy la ay vers xolo yooyu yooyu yooyu xolo ñun loolu dañ koo lijjantiwul ñun fi ñu toll moom ba fay toll amul li ñu am comprendre li ma ñun lu ñu am dañ koy nangul mais affaire yu siis yoo xam xam nga a ne gars yi di dafa am barke Seydina Mohamed billahi wallahi wa yi am na ñoo xam ne xolo billahi wallahi wa taala moo xam dafa am ñoo xam yàlla xam ne bi moo juddu rek far yàlla médecin bi nga xam ne moo leen accueillir ñëw ak Sénégal xol bu bon la yor moo tax ñu ak xol boobu la indi comprendre fi ma la waxee. Mm. mais géejawaay boo fa génnee Balla Gaye 2 ak yaa ngi dégg defaluñ ma dara nag ñi ma lay wax ni Balla Gaye 2 guy yaa ngi dégg ak ak xal Aliou Seye 2 Marley xam bala maa gaa yi jàpp ne comme damay classe Aliou Seye 2 non non du Aliou Seye 2 nag na leer du Marley it na leer comprendre fi ma la waxee. Mm. mbëri ndaw wax mais mbëri mag yi laa la wax mm. boo si génne ñooñu ki des baaxuñu mais li ñu def moom xam na ko bu baax bu seetaane affaire bi dina na cinq tonnes maa tax muy wax yaa ngi dégg mais ay wër di yàqu dër nit ay yéene ko muy bëri ngay dem jël xaalis di fay pour mu daanu yow koo xamante ni yow dafa yow yow yow li nga am amagoo ko doo ko ñaanal mu kii mais bala maa dee ngay woo di vocal di ko conséquence yoo xam ne baaxul ah Ousseyn loolu nañ ko defaraat quoi sans problème waxtaan naa see grand liiru jaan nag nañ ko defaraat bu baax a baax ki may wax xam na boppam bu baax mbër mu mag la géej waay la nag soxor la xol bu bon la yor du dem kàddu yu mujj lan waaw maa ngi ziar ñëpp di tàggoo di ziar waa Wassare Lamb yëpp. ah tànk bi balaa nga di ziare 5 tonnes dof. Ah, ak. Euh, parisien ñoom ñëpp maa leen di ziar di leen tàggu di nuyu ñëpp di wax di ñaanal Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm. Mm-hmm. sunu xalifa généraux yi nga xam ne moom lañ waroon a njëkkee sax yàlla na sunu borom yàggal leen fi yàggal seen taxawaay ci sunu kanam def jàmm ju bari ci Sénégal. ñi ne ci kaso yi yàlla na sunu borom génne leen ñi ne ci hôpital yi yàlla na yàlla fëgg seen i bopp ñu jóg ak jàmm ba dellu ci seenu njaboot waaw loolu daal laay tàggoo di nuyu nag waa Thiès képp maa ngi leen di ziar. Mm. Habib Niang ah Habib Niang moom kenn du moom moom laa jël doxale ko sama diggante ak ñooñu parisien di wax. moo tax ak sama xule ko ëpp doole maam Cheikh Mbaye doomu El Hadj Mansour Mbaye moo ko ëpp doole fop. kaddu yu mujj lu muy doon. <coughs> waaw kaddu yu yi mooy maa ngi gërëm waa Fass ñëpp rek. xam nga di gërëm perkat yi bu baax a baax di nuyu Saliou Khouli bu baax a baax di nuyu mamaam maître Lika Ba ak papaam en tout cas Père Lat Diop. waaw di nuyu tamit maam Cheikh Mbaye mu El Hadj Mansour Mbaye le futur maire des ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax xam nañu yéeneem ci HLM maa ngi koy bëgg di dëgg di bëgg aussi Mamour Kandji grand frère de Saliou Khouli depuis maa ngi koy bëgg bu baax a a baax di nuyu Père Youssou Lakoum du nuyu gaynde téléphonique bu yoof Cheikh Bara Ndiaye Amath Diank Aziz Seydou Khoudia maa ngi koy bëgg bu baax du nuyu Assou Baro Fasilé di première dame Seydou Explosion maa ngi koy bëgg bu baax baax a baax du nuyu waa Fass ñëpp du nuyu waa Laayeen maam Njin Laay maa ngi koy siyaar bu baax du nuyu doomu Libaas Laay du nuyu waa Axlu Bay si Rasuul bi yëpp du nuyu waa Laayeen sama gars yëpp kulim juuma waa Touba Toul waa Kër Njaara Daaru Fay Caacaw Ndondol xam nga si ñaan kër bële ñëpp maa ngi leen di siyaar baax di leen bëggee du nuyu sëñ Saliou Diougul doomu day Saliou Xule waaw sa Ousseyn nga dimbali ma rek dafa am ñaar ñoo xam ne mënuma ma leen ñàkk ba ñu tudd ku mel ni Omar Seck sama xarit sama doomu nday jël doom tudde ma ak Laat Gueye bu Diourbel moom it jël doom tudde ma ñooñu maa ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaan ñëpp di nuyu sama chérie première dame Fatou Ndiaga Ndiaye. le grand centre de la bi de kii bokk ah. plateau bi di ko tëj. lu tax mu tëj plateau bi de bokk ci non non ah. moom suñu suñu tëj màkk yi ñoo ñu tëjal. ah waaw yow. waaw yow xam naa sax doon ma wax ma koy bañ moom laay mujj jëli. na la Laurent. waaw mais kii nee nga woon nga bàyyi ma mënoo maa bàyyi. non man kay def naa si ma bàyyi ma na samay nit bu ma bàyyi sant ba pare nga sant waaw waaw man dañ ma dañ ma proposé que dama ne nawloo ko mais kii laa amoon sama choix mais yàq na sama ambition ndax dama ko commencé woon a liggéey du la fen moo tax ma tegoon ci sama ma a liggéey sa sëf yooyu nag. Ah, waaw léegi maa ngi sant yàlla. di julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant ñëpp di sant képp koo xamante ni. di sant képp koo xam ne da ngay bëgg 5 tonnes dof bi yaa ngi dégg. di sant Serigne Khadim Mbacke référence ah di wax Birame Diouf sama iPhone bi ñëwagul yaa ngi dégg dañ ma dikk oto nag ki ma dig oto xam nga. yow kenn du la may permis. dof ku koy may permis. yaa ngi dégg ma dig oto bu ñibbisee incha allahu rabbi daf maa a may benn oto bu baax ma koy doxantoo ndax xam nga tey isaan man tey comme li di dox sama soxla xam loolu day neex quoi di sant ñëpp di sant képp koo xam yaa ngi bëgg 5 dof bi di sant géejawaay képp ku ma bëgg géejawaay maa ngi lay bëgg comprendre ma la di wax nag géejawaay 100 pour cent bi nañ ko defaraat di sant dof yëpp di wax mention spéciale di wax na man sama supporter nekk séeréer dama leen di bégee en chaque fois ndax kaa venu euh, comme tellement chaque jour ki ma rappelé à cinq. il faut parler olof parce que tu connais pas français rien. ma booy jàng naa ba sem 3 man sem 3 laa bàyyi man mënuma causer. quand tu parles là il faut réfléchir parce que moi j'ai fait les bancs. ndax c'est toi les donne les cotes. non tu ah. moi ceci c'est lié quoi tous les tous les supporters ndax c'est c'est c'est donne les les les les les les les appuyer quoi c'est toi comme les adversaires qu'a venu ndax moi z chaque jour qui demande les internet que commentaire cette combat beaucoup mais mais moi c'est c'est top toog sama njàmbur quoi xam le grand leader mais c'est le grand leader mais c'est le grand mais non il est docteur Gigo il est il est il mais il le grand leader mais c'est le grand leader sa grand leader ce n'est pas la développer le lamb quoi eh, ndax c'est non non non ndax xam nga c'est toi les grands leaders c'est la donne les poignées laisser quoi te donne le grand mais je donne les c'est résumé c'est a mais nag c'est ça venu il est bonne di sant ñëpp di bëgg dofi daal di bëgg àdduna gis ma tëj wala waaw mais Ousmane Dieng rek laay remercier baax a baax ak doomu ndeyam Ameth Sall maa leen di bëgg baax a baax a baax. noonu la demee ci jàmmaarloo di leen jox dig daje. Jéeseen Jéeseen damaa invité këram Jéeseen barki démb. Jéeseen Jéeseen Géejawaay Jéeseen. ndax wax dëgg bi ma ñëpp bàyyee moom moo ma fas sama xarit la sama doomu ndey yaa ngi dégg ndax dafa am benn maara dafa def benn seet moo tax moo tax invité ma maara bi maara mooy barabu sëñ Mourou Moustapha bi nekk Jumaaja sama benn xarit ci magal kasar daf ko doon dépanner otom heure añ jot mu na ngeen dem kër ga ngeen añ mhm. yaa ngi dégg xam maara lu baax la si jublu bi demee kër ga xam ñaari bool lay def ko am maara yi mhm. les maa sama xarit mu ne leen maa a ñëw avant mu ñëw éliminer nañ damadaa bi